bu fekkee am na loo xam ne ni ma ko waxee demewul noonu ñu méngoo ci ba niñ koy waxee doon bilan boo xam ne ñun ñëpp la engagé ma wax ne nag boo nekkee ci ab équipe ñii far ñii contre ñëpp ci équipe bi lañ bokk rek léeg-léeg nga yëkkati benn action nga yëkkati benn action ñi ànd ak yow ànd ak yow ñi àndut ak yow dal di contre am na ñoo xam ne dañuy contre rek dañuy contre lu mu mënti mel bu baaxee bu baaxul itam dañuy contre rek comme du ñoom am ñoo xam ne dañu contre parce que dëgg dëgg seen xalaat méngoowul ak niñ ko kilee waaye ñoo ñu ñëpp soo dee ku rafet ji ko ñooñu ñëpp li ñuy def dañ lay dimbale parce que bu boobaa malgré li ñu contre projet boobu su jàllee boo koy réaliser da ngay xalaat. ñi contre lan lañu doon def lañ la doon wax nga tenir ci compte loolu moo tax bilaam bi ma def tey ñun ñëpp ko bokk donte am na ñu koy ñaawal moom kay xanaa li ci kile mooy ay nit ñoo xam ne dañoo fekke woon ba ñu nasa yëpp ba pare génn fi bëgg a jël loolu jox ko ñeneen wala ñu ciy wax wax joo xam ne ñoom bañ koy bañ bañ bañ koy nas ñoom mosuñu cee gis lenn lu ñaaw xeyna lolu rek waye li ñu wax tay ni bilan la bo xam ñun ñepp la engagé ci tank nak wax dëgg yàlla gàcce ngaalaama ñi nga xamne ñom la bokal équipe bi xam nga boy def bilan d'abord dañu wara xam yow di nga digon nit ñi ba ngay campagne lan nga waxon ne suma bi lolu lay def parce que nak bu may déglu euh, yenn yenn wax yi damay tiit damay tiit damay yaakaar ni ñii ñu ngi laaj dëkk waaye xamu ñun dëkk ni mu tëdde donc loolu am na solo li nga ne woon su ma jëlee dëkk bi loolu lay def am na solo waaye la nga fekk ba nga jëlee dëkk ba tam moo gën a tee am solo donc ñaar yooyu man mooy sama base pour ma def bilan bi mën naa wax ci gàttal ne ñun bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla bor yi nga xam ne moom lañ fi fekk tey fay nañu téeméeri millions ak ñaar fuk ak ñent millions. 124 millions de dettes mom lañu régler réglé ñun doga a nak ak suñu toll suñu toll nak ci kàttanu suñu borom wax dëgg bàyyiwuñ fi bor Be pare ci kàttanu suñu borom malgré jafé jafé yi parce que nag am yo xamné ngor ne gi jappalé wu ma ci dé loolu mom dama koy wax.

2022 nous avons fait plus de 500 millions de projets et c'est déjà le financement est déjà obtenu Nous vous da marché lancé déjà suivre travaux nous ñu def ko parce que PTI plan euh, triennal d'investissement bi ci donc, nous 2022, 2023, jël 2024. 2022, nak, le pagiche. Le pagiche. Mais 2023, nous avons un code paro 120 millions 600 et quelques mille. Donc, nous avons un 120 millions pour 2023. Nous avons un homme qui fait. Nous avons un homme qui Nous 20 millions. Nous avons terrain yi nga xamné ne nek ci école yi ñu défaré ko parce que comme quartier yi amuñu ay terrain bu ñu defaree terrain yi ci école yi élèves yi dinañ ci euh, jëfëndiko mais ndawu quartier yi tam dinañ ci jëf ñu jël 20 millions ces trois établissements défar fa ay infrastructures sportives 100 millions yi ñu xol comme défar nañu électricité défar nañu ndox 100 millions yoyu nañu xol fu électricité bi soxé nañu fu ndox mi ñu jël 100 millions def ko aussi dañu wax né affaire canalisation affaire canalisation mom lañu yaakar né loolu moo faj mbiru mbënd bi ci dëkk bi loolu mom lañu ministère assainissement ce ko 2022 dina ko def mais ñu jël nak 100 millions encore ba équipe bi na xol li nga xamné amna ay gox ay ay ay koñ yo xamné xeyna xëy ba demul fa cent millions yoy mu faje ko problème yi nga xamné matul ci infrastructure bu gestion des eaux pluviales donc ñun affaire électricité affaire ndox affaire police affaire euh, amul lenn lo xamné ne nañ ko de côté té it nekkul lo xamné dañu compter ci xaalisu mairie bi parce que bu dee xaalisu mairie bi rek duñ ko am bu ñu naxante mairie amul xaalis suñu mairie bi amul xaalis xanaa boog ñu xalaataat yeneen waaye man de sama xam-xam ak li ma gis comme mairie ay tax ak ay impôts lay dunde taxes ak impôts yi ñuy fay fii ci Joal mënta tax Joal am des investissements sérieux yàllaa ñu suturaal ñun bi ñu ñëwee ba gis loolu li ma jëkk def. avec suma équipe municipale mooy def un document qui xam intitulé Joal Fadiouth en 16 projets Je ba dëkk ñoom Ouley je suis c'est avec le président de la république je jébal ko ko amul réaction ma jóge foofu di séentu cinquantenaire commune Joal Fadiouth Mané, c'est une occasion cinquantenaire événement donc nous allons ci cinquantenaire bi dal pour bâtir le plan Marshall de la commune de Joal Fadiouth

ñu mën a sóob li nga xam ne soob nañ ko ba ñi nga xam ne ñoo ñëw suba ñu tegal leen loo xam ne dañuy teg rek daldi daldi dal di dal di jow pakaseen boobu moo ñu ko may. <coughs> waaw lenn day dinaa ko ñaan candidat yëpp mooy lépp li ñuy def nañ jiital yar ak dal ak dëggu. yar mooy ni ngay waxe ak nit ki fexeel ba bu ëllëgee waxin woowu doo tase moom sëgg xam nga wax bu jub waxu teraanga teewu la wax dëgg dama leen di ñaan ñu dëggu ndaxte bu fekkente ne danga ne askan wi ñoo la tax a jóg bul nax askan wi bul digg askan wi loo xam ne wóor na leen ne mënuloo koo def

donc nit ñi daal nañu ànd ak yar ànd dal te wax dëgg loolu laa leen di sant di leen ñaanal ki nga xam ne moo gën ci dëkk ci commune Joal-Fadiouth bi yàlla rek a ko xam yàlla na ko yàlla def kiy nekk maire commune Joal-Fadiouth ak équipe waaye maire day bu amul équipe dina metti de man mi ci nekk juróom-ñaari at mën naa wax ne maire baax na lool waaye équipe bi koy euh, jàppale ci liggéey bi bi koy yombalal liggéey bi bi muy yónni am na solo am leen maire am équipe te mu doon bi gën ci dëkk bi yàlla ko suñu borom def.